maanaam gëm dogalub yàlla day tax nga doon jàmbaar sow maanaam gëm dogalub yàlla lu xew nga gëm ni ci suñu borom tabaraka wa taala la jóge kooku dalay def jàmbaar xoolal yonente bi alayhi salaatu salaam lan la daan wax yéefar yi daf leen daan wax naan leen def leen lu leen neex mënu leen ci man dara xam nga loolu mooy fit mun leen ci man dara lu leen neex def leen lépp lu ma dal gëm naa ni ci sama borom la jógee loolu mooy fit loolu yàlla moo ko ko gëmloo qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlaana nee na ko waxal ni leen lu dara mënumaa dal lu lu jógee ci suñu borom tabaraka wa taala ndax suñu borom rek ñu moom mooy dogal lu ko neex ci jaamam bi kon mënu leen ci man dara faw nu gëm ne dogal yépp ci yàlla lay jógee waaye nag sëñ bul wax ni rek ba dey bu demoon Kaolack du daanoo ku moto bi yàlla boo ko dogal diw dey su demoon ci àll bi xaj ba du ko matt diw dey su fanaanoon kër ga duñ sàcc xarma diw dey loolu yàlla suñu borom da koo tere képp kuy gëm yàlla yàlla nee na yaa ayuha alladina amanu laa takunu kalladina kafaru wa qaalu li ixwanihim إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم lu ci topp sëñ sëñ Sow wallahu yuxyi wa yumiit wallahu bima taamaluuna basir yàlla mu ni ee yéen ñi gëm yàlla bu leen mel ni ña nga xam ni dañoo weddi yàlla ñoom day dañuy wax seen mbokk ya naan ku ca génn dem ci àll ba am fa problème wala sax nga dem xare ñu rey la ñoom yéefaree dañuy wax naan ñoom de suñ toogoon ci ñun konoon la leen dal du leen dal buñ toogoon fii ci ñun kon duñu dee buñ toogoon ci ñun duñ am nangam nangam du xew yàlla nag nee na loolu yéefar yaa koy wax waaye yéen jullit ñi bu leen ko wax tere naa leen ko ndax ñoom ña koy wax day gën a bonloo seen xol rek li yaj'ala allahu dalika xasratan fi qulubihim waaye na xam ne nag wallahu yuxyi yumiit yàlla mooy dundal yàlla mooy yàlla mooy rey fu waay nekk dogalub yàlla bu waree wàcc ca biir fam ko fekk fam ko war a amee la koy amee yàlla nee na qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madaaji'ihim yàlla mu ni su ngeen duggoon seen biiri néeg tëj néeg ba ba mu dëgër làqatu ca biir dugg ca ron yàlla nee na su fekkee da ngaa war a dee ci bërëb sàngam danaa la luqati fa nga nekk yóbbu la bërëb ngam rey la kon bul am benn jaaxle ci lay xew ci adduna bul am benn problème ci xew-xewi adduna yi ndax li xew ci suñu borom lay jógee tabaraka wa taala dégg nga te na ngeen xam ne nag gis nga boo gëmee dogal yàlla sa borom tabaraka wa taala dafay dalal sa xel daf lay teg ci siraat al mustaqim yàlla nee na maa asaaba min musibatin illa bi idnillah lu ci topp wa man yahdi qalba subhanallah wa man yumin billah yahdi qalba yàlla mu ne benn dogal du wàcc lu dul ni ci ndegelu sun borom tabaraka wa taala lay wàccee waaye nag ku gëm ni ci yàlla lay jógee yahdi qalba wa man yumin billahi yahdi qalba ku gëm ni ci yàlla la jóge sab xol day naat day neex da ngay bég dara du la metti sëriñ bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadisum abdullah ibnu abbas yàlla ko yàlla gërëm moo baayam xadis bi ak ak ahmad soloo nañ xadis bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa woo abbas benn bis ni ko yaa xulaamu yaa xulaamu inni uallimuka kalimatin nee na ko yow ndaw li booy booy kaay ma xamal la ay baat yu am solo sëñ bi kaay ma xamal la ay baat yu am solo yu mat a bàyyi xel yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn baat la daan wax nga jàngat ci jàngat yu bari lool te yaatu loolu dana feeñ ci xadis bi mu ni ko yaa xulaamu ay yow gone gi alxulaam mooy gone gu amagul dix-huit ans mu ni ko yow gone gi kaay ma xamal la ay mbir mu ne ko ihfadillaha yahfadka xoolal loolu ñaari baat la wala ñetti baat ihfadillaha yahfadka du ñetti baat xam nga lu muy tekk nee na ko ihfadillah na nga wattu lépp lu na sa borom tabaraka wa taala digal nga respecté ko mooy ihfad ihfadi salaa wattul julli respecté ko lool toppal yàlla sa borom tabaraka wa taala waaye nag ixfad xududallah na nga wattu ba bul jéggi frontière sa borom tabaraka wa taala na nga wattu ba bul àgg ci mooy yàlla stop ixfad loolu mooy ixfadillah fexeel ba bul jël alalu jàmbur ixfadillah wattul sa bul jël alalu jàmbur bul fenal jàmbur bi mooy ixfad lépp ci baatu ixfad la de bul jël alalu jàmbur bul fenal jàmbur bul jëw jàmbur bul yàq derub jàmbur bi bul sosal nit ki bul weddi yàlla nee na su boobaa ixfadka yaxfadka kon yaxfadka nee na kon sa borom tabaraka wa taala dalay wattul boppam dalay aaral boppam ci lépp luy musiba ak shuruur maanaam lii ma la digal boo ci nekkee sa borom tabaraka wa taala daf lay sàmm ci lépp luy achar ixfadillah yaxfadka mu waxaat ko ni ko ixfadillaha tajidhu tujaahaka beneen ixfadillaha ñëwaat na nee na ko toppal yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam toppal alquranul karim ak sunna toppal ndigali sa borom tabaraka wa taala nee na su kon da nga fekk yàlla tujaahaka mu nekk ku la saf-saf mu nekk ku la saf-saf maanaam saa boo nekk ci topp yàlla nekk ci topp alquranul karim jëfe ndigalu sa borom wattandiku lépp le ak mooy yàlla di sóor sa borom di ko bàyyi xel nee na da ngay dema dem ba sun borom da lay saf-saf da ngay saf yàlla subhanahu wa taala da ngay dem yow ba da ngay sa borom foo nekk soo bëggee mooy yàlla sax dangay ngay ni sa borom ak lay gis soo bëggee wax lu da ngay yëg sa borom ak lay gis soo bëggee def na yàlla xaraamal da ngay yëg ni sa borom ak lay gis te it nooy def ci lu nëbb ak ci lu feeñ dangay ngay gëm ni sa borom rek nga koy jëflanteel ihfadillah tajidhu tujaahak lan moo topp ci xadis bi ku ko xam mu ne ko waalam na nga xam ni anna al ummata law ijtamaat ala an yanfauka lam yanfauka illa bi cheyin qad katabahu llahu lak mu ni ko na nga xam ni yow gone gi xamal ni xeet wi wépp suñu àndoon dajaloo ngir bëgg laa jariñ nee na mënuñu laa jariñ lu dul loo xam ni sa borom tabaraka wa taala moo ko bindoo ñeel la gis nga ko maa asaaba min musibatin illa bi idnillah qul la yusibana illa ma kataba allahu lana mi ngi ñëw mu ne ko xamal ni xeet wi wépp suñu àndoon bëgg laa jariñ mënuñu laa jariñ lu dul loo xam ne sa borom moo ko bindoon ñeen la mu tegaate mu ne ko walaw ijtamacu ala an yadurruuka lam yadurruuka bi shay illa bi shayin qad katabahu llahu alayka nee na ko ñoom ñëpp it bu ñu dajaloo woon bëgg laa lor mënuñu laa lor mukk lu dul loo xam ne sa borom moo bindoon ne daf laa war a dal kon na xel yépp dal ci diggante ak ci suñ diggante ak suñ borom na dal amul dara lu kenn mënal sa morom lu dul li sa borom moo ci ànd kon na sa xel dal sëñ bi yonent ba teg ca mu ni ko rufiati l aqlaamu wa jafati suxufu nee na ko bindukaay yi ngeen bindee jóg na jeex na waaye nag këyit yaag aliwa ya fendi na kenn mënatu koo far kon na xel dal bu baax sëriñ bi maa ngi leen koy bàyyiloo xel di ko bàyyiloo xel sama bopp bu ñu ragal nañu ragal yàlla xaddis bi sax subhanallah dama ci lu bari sëñ bi ba ba ba mu ne ko ixfadillaha yaxfadka ixfadillaha tajidhu tujahaka daf ne ko ida saalta fasalillah ne na ko booy ñaan ñaanal sa borom tabaraka wa taala bul ñaan kenn bul yaakaar kenn wa ida staanta booy sàkku ndimbal fastaan billah na nga sàkku mu jógee ci seen boro mu doog a indi nag waalam iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yow dongu yàlla lanu jaamu lanu yaakaar wa iyaaka yow dongu yàlla nastain lanu sàkku ndimbal wallaay bu ma demoon ci sow mii ni ko sow kër ga dara nekk fa teg maa dimbali ci dépense sow yëkkati 1000 francs may ma la ma sama borom digal ci loolu mooy naa ko sant moo gërëm ko ñaanal ko waaye nag dogal bi ca sama borom tabaraka wa taala la joge man na maa ñaan sow 1000 2000 3000 ngir faj aajoog njaboot gi mën naa ne waaye nag su ma koy ñaan su may ñaan njéggal ak yërmande faaliwuma ci sow ragaluma ci sow su may ñaan aaru ak mucc ragaluma sow faaliwuma soow yàlla dong laa ci yaakaar mooy wa ida sa'alta fas'alillah booy ñaan àjjana ñaan ko yàlla booy ñaan ñu mucc la ci sawara ñaanal sa borom mu mucc la ci sawara mbugalum bàmmeel ñaanal sa borom mu mucc la ci waaye sow mënu ci dara soo de lim man mooy may la mil nga def dépense may la ñaar téeméer wala mu teg sa kër wala dëkk ba wala may la ab yére waaye yooyu nga xam nag borom bee ko jagoo kooku borom bi dangoo ko man sow munu ci dara dégg nga ko maa ngi leen koy bàyyiloo xel di ko bàyyiloo xel sama bopp yàlla ñu ci yàlla dimbale te yombal